tey nag euh, dañu ñëw euh, doxantu tàllal micro askan wi ñu wax seen xalaat jëm ci décision bi nga xam ni euh, jël nañu ko jéem a ko nag bi yoon ci li nga xam ne rek mooy barabu jullikaay yi ñu xamal ñu ni li nga xam ni mooy julli ajjuma yi dañ koy ajandeegul li ko waral nag xam ngeen ko mooy virus corona bi la ñuy bëgg xeexal ba nga xam ni rek du mën a àgg fi mu war a àgg ba tax ñu jël mesure yooyu lan la xalaat ci loolu nga xam ni ab dogal la bu ñu jël ngir ajandeegul li nga xam ne mooy julli jumaa yi si yenn barab yi. mbir mi de ah yéeme na yéeme goo xam ne man bu ma ko déggee sax daf maa jële kaw jële kaw bu ma jëlee kaw mooy comme ajjuma ji ne julli yàlla yi ñu santaane si sama dégg-dégg ak mbooloom mi ñu ni ñu booloo war a julli taxawal julli ñu ne ñu arrêté ko ah bon de dina doy waar sama xalaat dina doy lool am na lu ko gën a yéeme yoo xam ni ñaa ngi ciy ah, sama gis-gis. te jamono jii muy waaw kaar yi ngay gis nii yëpp waaw waaw macha allah kaar bi sax dafa fees del yeneen yoo xam ñu ngi fees te loolu sax ak ak juma ah bon ba xanaa dañuy dañuy tëj kaar yi kaar arrêté sama xalaat jumaa yi dañ ko bàyyi kat ñun julli ñaan yàlla ñaan yàlla lii jëlee ko fi mu jóge fi moo gën kat sama xalaat mais lii ñu nar a def nii ah day niroog dafa am lu muy lu muy niroog sama xel man sama xalaat man. lii am na lu mu bëgg a undu bon ah jumaa ji jaamu yàlla ñu ne kenn du fa julli te kaar yaa ngi nii ba léegi kenn téyegul kenn nit ñaa dox di dem macha allah jàmm jaa ngi fi nañu may may nit ñi jàmm ah ñu am jàmm mais nag ah li ñu bëgg a def dina doy waar sama xalaat gu gàtt jumaa ji nañ ñu bàyyi nit ñi ñaan yàlla dugg ci jumaa yi di julli waaw di ñaan yàlla lépp dañ léegi léegi wante leneen lañ ci bëgg a def ah. man de garanti ma te waxuma ci lenn lu ma lu rafet de gisuma si dara dara de ci rafet ne na loolu rafet na. xam nga julli am na fépp boo nekkee sa biir néeg di julli loo ñaan yàlla dina la ko jox yàlla na soxlawul église wala jàkk wala dara pour julli li ngay waxtaan ak sa ak sa borom sa sa sa yàlla yaa moom yow ci sa bopp. nga dem église wala nga nga wala nga bañ a dem église nga dem jàkk wala nga bañ a dem jàkk li ngay def sa julli bi. ak ni mu eggee ni muy génne sa dem sa ci ci sa ci sa yàlla ci sa borom loolu moo gën a am maanaa yëpp en attendant comme situation à situation exceptionnelle ñu defa ay euh, réaction exceptionnelle c'est tout c'est en attendant rek mais pour le moment nañ ko defee noonu yàlla dinañu dimbali. waa xanaa di ko di yéeme rek yàlla waxul yàlla waxoon ci alxuraan yëpp euh, tey ñëw na te jamono suñ suñ jamono yi wasila euh, Cheikh Ahmadou Bamba. balaa gu mel nii amoon na fi am na am am xasida gu mu ci bind ñaan yàlla yàlla saafara ko ci ci yàlla ci loxo yàlla saafara kon tey balaa gu mel nii bu ñëwee bu ñëwee ah ñu doon ay julli doon ay taalibe Serigne Touba ah ñu delluwaat ci xasida gi ñaanaat ñaan yàlla yàlla jëlee ko fii. boo xoolee ñun ay julli lañu te julli juma dafa bokk suñu char bokk suñu nga xam suñu borom da ko da ko bëgg si jullit di ko digal si di ko digal digal si jullit ba tax na tamit. si sama xam-xam bu gàtt que ñu ñu ñu arrêté jullim jumaa bi ndax feebar bi dina xaw a doy waar si déggin mais pour man loolu man man gisuma loolu daal ndax xam nga feebar moom ay mbir yi nga xam ne suñu borom moo koy teg doomu aadama nit munoo wax wala nga liggéey xëy na ba ba ba ba am feebar xëy na mun nga liggéey loolu mais yaakaar naa ne man si sama gëm-gëm sama imaan ak li may dundee man damaa gis ne lu dal jaam rek suñu borom la mun ngay xëy di julli ji ñëpp feebar doo feebar mun ngay xëy toog sa biir kër julli ji woo dafa ji woo dara toog sa biir néeg tëju fermé wu feebar bi fekk la fa dafa fekk la nga xam ne suñu borom moo ko namm si yow man loolu mooy sumay baax damay naan yàlla ba pare boo ne yàlla luy ñëw ñëw ñu dem julli jumaa tëj jumaa yi parce que feebar am na fi est que tamit demoon julli ji boobu jëkk suñu loxo suñu borom ñaan ko du gën saafara bi parce que yaakaar naa nee nañu lu të lépp ñaan mun na ko dindi ñaan day dindi lu bëre kon nag nañu bàyyi gaa yi ñoom julli ñu jiital yàlla fagaru nag am na ci solo nañu fagaru bu baax def lu ñu yàlla sant taala suñu loxo ñaan yàlla suñu borom def tawféex man loolu laa gis daal jàmm rek laa ci xalaat comme comme moment bu gàtt la rek ñu muñ rek defee ko ci kër yi wala ñu muñ rek bu ñuy julli ñu sorewante ay deux mètres bu dee mun na nekk église yi la même chose ñu muñ rek ndax àddina moom nit day sàmm boppam comme ni ma la wax rek léegi ñu soree rek te dégg ndigal ndax ndigal ku ko dégg ku am kilifa rek doo juum am nañ kilifa kilifa gi taxaw na sëriñu murit bi taxaa mu baax mi borom reeju neex ji moo njëkk a génnee def participation ñëpp di def enseignant yeeg ñëpp def seen participation ah yal na leen yàlla jàppale ba li ñu bëgg rek dem ba feebar bi génn fi rek génn rek dem na feebar bi dem nit ñi delluwaat ci activité yi delluwaat ci marché yi delluwaat ci église yi delluwaat ci jumaa yi ndax Sénégal dafa xat julli jumaa gi da man moom d'accord ma ci dakkal gi ndax suñu borom tabaraka wa la moom julliti yàlla yi te moom jaami yàlla yi te benn xalima la bind jaami yàlla yëpp ñëpp ci génn te dem naa ci mbindum sëñ ma bind wa qudratin ma iradatin lahu wa jabata amru wal tuji lahu nee na yàlla borom bu kàttan la lu ko neex lay def te kenn ci dara sax mën naa yokk feebar bi xanaa xamoo ne ci kaw julli googu mën nañuy julli sax di ñaan suñu borom wàcceel ñu feebar boobu mais julli moom warut a dëkkal julli man de gisuma lu tax ñuy dëkkal julli vraiment waaw ah, ndax julli teewut a dee ñàkk julli teewut a dee julli taxut a feebar ñàkk julli taxut a feebar kon nag dëgg suñu borom nga xam ne moom la fi def muy julli julli da ko war a da ko war a jëfee. waaw bon en fait euh, di ko rafetlu naan aussi yéex nañ koo def parce que aussi euh, comme li ñu gis euh, jàngoro bi. Euh, ba law na ci àdduna bi te aussi njëkkewul Sénégal donc yaakaar naa ne pays yi nga xamante nii tey fala jàngoro bi sosoo tey am na avancée bu mag bu ñu def ci wàllub recherche ci wàllu aussi xeex jàngoro bi donc tey Sénégal euh, bu ñu jëlee mesures yooyu nga xamante nii pays yooyu jëloon nañ ko man dama naan sax dañ koo xaw a yéex a def waaw mais ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax et parce que ñu ko doon xaar bu yàgg a yàgg waroon nañ ko def bu yàgg daal naa ñu tuub rek ñi ko ñi ko sëñ Mountakha Mbacké waxee rek ñu ko ñaan yaa fi loolu te wér ñuy dellu di tuub di jégalu ñaan yàlla yàlla yàlla dëndal ñu balaa bi na balaa bi buñ waxantee dëgg ñi ko fi dugal ñëpp dëkkuñu Sénégal bitim réew lañ ko jëlee jaar ci frontières yi indi ko fi waaw kon nag dañuy li am mooy ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi ci jàmm ak salaam bàyyi ñu bàyyi ñu suñu suñu sago. bu doon si kaddu si si kilifa. njiit yi kilifa ñu ñu gisal réew mi conseil bi moo leen di jox maanaam lu ma leen mën a diggee digal maanaam nañu waxtaan rek xool na ko gën a rafetalee rek ñu def ko parce que ñun ay julit lañu ñun ay julit lañu te réew julit lañu nekk mënuñ ne feebar bi dugg na fi dañuy tëj te lépp loo gis ba pare jumaa nekkul lu benn nit moom nekkul lu as lu askan moom la ak lu bari am lu ñëpp moom la kon nag rafet na lépp lu ci am dañ ko waxtaanee ñu trouver solution man loolu laa gis njiit yi ñoon comme loolu laal la mën a jox comme conseil quant à ñi maanaam réewum diine bi wa ñu yor wàllu diine yi conseil bi ma leen mën a jox mooy maanaam déglu rek ma yaakaar naa ne déglu lu mu la mayul rek du la ko xañ dañuy déglu toog bokk waxtaan kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñu xool solution bu gën a yomb rek yàlla daf tawfeex